neex sa sel sa saf di defar tey euh, ànd ak yéen ci suñu benn recette recette bu neex mun nañ ko woowee petit plat risol risol au poulet moom lañ leen réaliser tey mu nekk plat bu bu neex mun na ndogu mën na xëdd vraiment ñu boole ko ñun mayonnaise ak ketchup ku mu neex nga boole ko ak beneen sauce au choix la pour réaliser ko c'est simple poulet man bii tey dama ko muusal ba pare dama bëggoon tey vidéo bañ a jël sama bu saf samay piqué ko normal di koy sama 500 grammes euh, oignon ak poivron euh, taasu diwlin taas dina doy bëgguma mu après dinaa wax à côté ñu ngi aussi euh, ñaari yu beurre deux cuillères à soupe de beurre pour pâte bi pâte risol bi ci lay à côté gis ñu ngi am farine 600 grammes farine benn liitaru ndox mooy defar euh, pat bi moo nekk doon ci karaaf bi épices yaa ngi nii tey dañu utiliser laurier ail en poudre moo nekk noonu herbe de Provence curcuma pour couleur ak euh, coriandre à côté aussi ñu ngi am sel ak poivre suñu seex yi xàmmee ngeen ko gis ngeen day dem tout le temps suñu ay togg à côté aussi ñu lait liquide lait euh, bu 250 ml de walaat benn kudd bu mag farine ak euh, ben kudd bu mag beurre li tamit suñu ay sauce béchamel à part fromage râpé quantité boulonnaire. la neex donc suñu ingrédients mi ngi ni ingrédients des donc UPS. ganaan. luy solde laay defoon. damaa war a ñëw di la ñamal sax bañ a woor. bu baram waxee ma ne ko maa doon maa doon jàppale sa gars yi. bari ci am ko jaral na la lii. teel ngaa lijjanti ndox de. ndox dugg rek. moo tax kii bi dina fi yàgg. donc là désossé nañ suñu ay ginaar ba pare su ngeen gisee foofu dama noppi bàyyi leen ngeen déglu <laughs> un peu coulisses sama Adja Traiteur mais def un big up à sama assistant sama xarit euh, Malik Thiam mon beau frère <laughs> gis ngeen daa woor nii de waaye 14h lay commencé. 16h ba 17h kenn du am jàmm donc là ñu continuer suñu togg teg nañ suñu euh, casserole ci euh, suñu poêle plutôt ci euh, gaz bi def ko fa bu yem def suñu tasse diwlin daal ñu ñëw ci suñu soble pourquoi def ma diwlin bu bari déjà man j'aime pas diwlin bu bari ba pare suñu farci bu niné boy après euh, rissoli yi da ngay gis day naqaree tëj wala muy siit donc touti diwlin nga ci def comme ça sa farci du niin te dina normal te diwlin bu bari sa dafa baaxul donc c'est pas conseillé médicalement neexul vraiment tok bu am diwlin sa dafa neexut donc ni ngeen ko gisee nii def nañ ci suñu soble ñu daal di koy yëngal pour mu maase à peine ngay gis diwlin bi donc c' est juste pour ne pas mu ñàkk ci togg bi mais tuuti benn taasu ataay rek dina doy donc laa dañuy ñëw jël suñu ay euh, soble sotti ci daal di yëngal sànq mu leen doon wax ne gis ngeen sama beau frère <laughs> su may togg ma am jàmm soit mi ngi assisté wala mi ngi may waxtaanal woor ba pare naan ma est ce que ma dog ak ay dama mar naan yooyu de lay dund ci kër gi donc laa ñu sotti suñu poivron benn doomu poivron bi nga xamante ni euh, moom laa leen présenté woon sànq dama ko ci daal di daggate dagg yu gudd pour mu mun ci feeñ mun ci saf quoi relevé gour bi ku mu neex nga def ci poivron jaune poivron rouge wala carotte râpée c'est au choix man moom tey poivron rek laay def ku bëgg carotte râpée aussi bu nga ko ci def de da ciy ànd aussi donc ñu daal di yëngal poivron bi ak soble bi togg bi day gaaw jaru xaar soble bi ba mu ñor soble gaaw na donc laa ñu def sel def curcuma épices yi daal curcuma lañ def laurier day ñëw coriandre moo nekk def épices lu yam rek jarul muy parce que épices bu wala mu saf de trop ci bi de Provence mooy dugg noonu day dem ba day yàq sa goût togg donc vous nekk da ngay def lu comme ça mu donc laurier moo ñëw dugg noonu def nañ ci aussi vinaigre donc là dañuy ñëw jël suñu ginaar yi nga xamante ne désossé woon nañ ko sànq yi taxoon Malick Thiam di di di <laughs> di saalit xam naa ne koy simmi ñu ngi fi dinañ ko simmi ab caameen la donc soble bi ay à peine cinq minutes hein, lañ ko togg bugguma ko togg ba mu lax donc dafa commencé dee rek ma jaxase ko ak ingrédients yi ak poivron bi jël sama poulet ñëw sotti ci gis ngeen su ma yëngalee ba mu maase gis ngeen yëngal naa ba mu maase dama ñu jël suñu meew daal di ciy sotti au lieu may togg sauce béchamel à côté di ko dugal après su may farce dama koy boole ci farce bi benn yoon mu suñu goût benn kuddu mag euh, beurre moo ñoo fekk si noonu composant béchamel yi nga ciy defar rek ak suñu benn kuddu bu mag farine daal di yëngal ba mu maase farce bi day neex day riche day diis bu ngeen gisee li mu ngeen ci lekkee ñaar ñett ba ñeent. facilement mun na laa suur parce que farce bi dafa riche ba pare dafa diis gis ngeen ñu daal di yëngal ba mu maase bu maasee nga jël sa fromage daal di ciy def fromage bu doy man def naa sama fromage bu doy daal di yëngal non farce bi rek jël sa kudd di ko lekk ni jar na lu nekk imagine nag nga defal sa risol yu normal taajal ko sa àllaaji ndogu gis ngeen laa maase na yéen a ngi seen fromage bi ni muy liddeekoo mu am aspect bu xaw a pâteux yéen a ngi koy gis ah man bëgg naa lii ci togg fromage da ngay def ba mu doy di leen wax ngeen dem aimer abonné sama page Instagram et surprise mi ngi leen fay xaar ñu ngi koy waajal di leen wax aussi di leen abonné ci chaîne YouTube bi ba ngeen seetaanee vidéo en bas de la vidéo euh, il y a le bouton s'abonner il faut il faut cliquer sur ça il faut aussi aimer si ce que je fais neex na leen ngeen di ko aimer day tax algorithme YouTube tout le temps di recommander sama ay vidéo aux utilisateurs tax tamit euh, team bi gën a yaatu gën a ñu gëna am doole jaajëf ñu continuer suñu réalisation recette légui nag comme farce bi fété na côté ñoo dem ci pat bi dañuy jël suñu ndox bu tàng 1 litre bi ñu tegoon noonu daal di koy baxal bu demee ba bax ñu jël suñu beurre ñaari kuddu yu mag daal di ciy def mu daal di sey nga xaar mu sey c'est vite fait boo defee rek bu seeyee nii gis ngeen maase na na un peu bant bu ndaw biñ ci defoon daal def sel def poivre ku bëgg kaane defal kaane ku poudre d'ail defal poudre d'ail waaw donc da ngay assaisonné liquide bi daal ba mu neex comme ça pâte bi du lawet pour herbe de Provence dañ ci def noonu def nañ ci aussi euh, poudre d'ail poivre def nañ sel curcuma pour mu am couleur bu rafet mais lu yem rek quoi sinon bu ëppee sa pat day jaune te nag lu ëpp nag baaxut donc ñu yëngal ba mu maase gis ngeen la maase na ñu jël suñu farine daal ci sotti na ngay sotti nag sotti bu gaaw daal di yëngal commencé yëngal j'avoue que nag pâtu risol laaj na doole yëngal pâtu risol du ay fo <laughs> parce que il faut yëngal bi gaaw bañ mu donju il faut nga yëngal ko ak doole mais nag su paree boo koy lekk dina la ko jaral gis nga di nii lay def amul tiit amul ragal da nga yëngal ba mu maase dem ba nekk benn bul nga xam ne réussir nga sa pat du doon yu def dara pat bi day nooy nepp te lii presque farine bi dafay ñor donc moo tax risol boo koy saaf après du yàgg da ngay def ci diwlin bi xaax tuuti mu doore nga tourner mu doore waat nga seppi parce que pat bi presque ñor na farce bi ci biir ñor na. Euh, panure bi aussi cornflakes la koy defé cornflakes ñorna donc liko composé yëpp c'est une suñu pat gis ngeen yëngal nañ ko ba mu former benn boule na montage et pat suñu matériel mi ngi suñu moule suñu coupeur suñu farci suñu euh, matériel donc jël farine def ko planche bi pour mu neex aussi on amul planche mu nga ko defee ci plat wala sa karowaañ ni, sa table de travail on nettoie comme ça, set désinfecté ko daal di fay réaliser sa ay risol donc def nañ dindi une partie on ma pousse plat bi ndax ma am assez de place on a une partie donc koy étaler ci ñu ci suñu planche ba mou fin pat bi jarul nga koy bàyyi mu dëll mun nga étaler ba mou fin day tax sa risol day neex ci biir day am place bu mun a def farce mais su c'est te moule bi rëyut de euh, farce bi euh, pâte bi day jël sa sa sa place ci muul bi yëpp de su fee tuuti farce lay am donc mun ngeen ko étaler ba mu oyof nga jël sa lu la neex nga daggee ko man bii moo tolloo ak sama moule donc moom laa koy daggee soo paree jël excès yi génne ko daal di ci bàyyi sa ay euh, forme cercle yi nga réaliser pour mun ko teg après ci sa muul dadi gis ngeen li dama koy xaw a xëcc tuuti comme ça mu dépasser moule bi nga xam ne su ma koy tëj du am benn place bu manqué parce que bu ci yemee képp boo koy tëj sax mun na am lu manqué sol bi tëj bu baax mais soo ko xawee taawi tuuti mu dépasser tuuti sa moule nga daal tibb sa euh, farce si xaw ko bës tuuti mu weng comme ça mu leen ne doo doo raté sens moule bi di nga créer benn creux daal di ko ci dugal correctement defar ko ba mu normal parce que risol moom bu tëjoo correctement do am problème daal di tëj bës comme pat bi dafa nooy nepp sooy bës rek automatiquement da koy da koy tëj gis ngeen réaliser nañ suñu ay risol ba pare moo ngi nii 600 grammes bi dafa sakkan ba bëgg a dee donc la flex ma leen doon wax mi ngi nii ku mu neex nga jël sa gënd dëbb ba mu mokk mais man bëgguma mu mokk rumban ma bëgg mu xaw a dijji tuuti donc sama loxo rek laa koy tase flex maïs bi la sans sucre donc ñoo jàll suñu panure farine nen def naa ci ndox pour mu oyof ak suñu ay cornflakes ku mu nekk nga dëbb ko ba mu moo ko mais man mu xaw a dijji nii moom ma ci neex c'est au choix donc nen bi da ngeen ciy def ndox sinon day dang de trop da ngeen ciy def ndox di remercier suñu ay groupe partenaire def leen seen jus ànd boole ko ak seen ay risol donc laa da nga jël sa risol njëkk koo def ci farine am na ñoom te day njëkkee ci nen bi def ci farine bi delloowaat ci nen bi loolu man day taqal sama ay loxo mooy war boo defee sa ñaari crisol wala ñaari kii rek sa loxo yëpp taq donc man nii laa dama njëkk a def ci farine bi su ma paree teg sama fourchette fourchette sa laa koy defee parce que kudd mun nga di ko siital nii mu des ci kudd bi mais fourchette moom dara du des daal di def ci nen bi siital ko ba mu siit teg ci cornflakes bi daal di ko ci sotti ba mu taq wala ma jël sama loxo sotti ko ci daal di bës gis ngeen day taq parce que nen dafay collé donc su fekkee ci nen bi la jóge rek dem ci sa panure ci sa cornflex wala mburu bu waw yaa xam looy defee sa panure day takk automatiquement nga jël daal di teg daal di continuer nag ba sa risol jeex gis ngeen man jeexagul woon sax mais bon dama tegaale woon diwlin di panure di saaf diwlin bi na ngeen def diwlin bu yam du ndaw nag mais dina doy quand même comme ça risol bi tëmb bañ a naan diwlin nii la nga wàññi sa gaz suñu hérisson pare na man mayonnaise laa ko booleel décoré ko curcuma pour mu xaw a rafet boole ko ketchup ku mu mu nga sa sauce béchamel boole ko ak moom wala sa sauce wu la neex daal yaay xool ngi diwlin c'est Christian. saf mën na ndogu mën na xëdd bon appétit à tous ñu remercier encore suñu ay partenaires seen ay numéro mi ngi noonu weeru koor bi ak seyfa doo def lu dul gagné sama Adja traiteur mi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen wax dem leen abonné wu ci page sama Instagram ay surprise mi ngi ñëw di leen xaar jaa ngeen jëf